ningi nanga ada le 25 novembre à l'arène nationale mbokk yi Jandeer production moo ñu woo arène nationale indil ñu nag affiche bu mag a mag a mag du xam ngeen Modou Anta bu Thiès ndaanaan bi champion bi jàmbaar ji moom la Jandeer jël daal di koy boole ak Aliou Seye numéro 2 bu waalo doomu Géejuwaay xale bi mën a bëri lool tey jàmbaar mbokk yi combat boobu nag la ñu jël daal di koy jagleel Yves Lamine Ciss mooy maire bu Morolan di jàmbaar ci gox ba combat spécial bi war a dox ci diggante Boy Jaxaaw bu Thiès maire de Kayar mbokk yi Clédor dina fa jàkkaarloo ak Junior drapeau Zalmbay opérateur économique nekk foofu ci commune bu Diender mbokk yi Wassintour dina fa jàkkaarloo ak gaz bu ñàkk ak yeneen six combats ci bésu le 25 novembre ci arène nationale lamb ji nag mbokk yi en live pay per view ngeen ko mën a am ci seen affiche point com que ça soit Sénégal wala bitim réew ci seen affiche point com dong ngeen mën a jaar bu seetaan lamb ji dox ci diggante Modou Anta bu Thiès ak Alioune ci ak Diender production ma basey ñu fero son e ngor ma kañota e kar pile jërëjëf dix heures trente trois minutes ñu dugg ci arène nationale nga gis embouteillage bi commencé actuellement nit ñi ñu ngi dugg ci biir stade bi nit ñi ñu ngi ne lay rang rang bi nit ñi am na ñoo xamante ne jënd nañ seen bee ñoo ngi leen di palper pour ñu dugg ci arène nationale bi dem jël seeni place dix heures trente quatre minutes pour wax rek làmb ji fi nga xamante ne toll na fa nit ñi noonu la demee. mooy Tapha Bouy Djiou Tapha. waaw bés bi ñëw na. mais Tapha da nga a ñëw. ma gis la nga toj ay glace. ba pare sol gilet yow lan moo ci sooyoon ba nga. ama lan moo tax nga toj. glace yi ama damm yi ngay toj pour lan la laa. ama damm laa ko sant ba glace yi pour bés bi la. waaw wala en matin nga koy def. en matin ma koy def. ama damm damm laa ko sant damm. mais lan moo tax kon nga sol gilet. waaw yow noo turoo di sol gilet. doomu président bi sax faale ñu. la ilaha illallah. Bill. Bill grand technicien Bill. lu ngeen gis mu rafet ci stade bi tey rek. waa jàngi ngi lu ngeen gis mu rafet ci stade bi rek. kii la. li mu def Tapha Tine Bombardier kii la woon. waa Lutte TV yéen a fi ne. Lamine. drapeau chef de l'État kii sant maa yaa ngi jàmm mais foo fanaan bil. ah yow xam nga technicien rek. bil 11h moins. waaw. supporters yi commencé nañoo dugg ci kaw kii. lamb ji dafa mel du lamb bu ndaw de. ah doy waar de mais man daal a ah, nañu xaar rek. rek ah. lépp ci loxoy yàlla rek. xam naa ne lii moom. du lu ndaw quoi sincèrement. déedéet du lu ndaw. tey dinañ gis lu yéeme quoi. dinañ gis tey lu yéeme yéeme incha allahu rabbi fii ci arène waaw Assane borom Bawal production. a xam yow. mon ami. maa ngi charré. mais Assane Ndiaye nelawoo nelawu leen da ko def juste pour jàppale seen frère. Luc Nicolaï man moom sa cofeel ci Luc Nicolaï yàgg naa ko xam. parce que mës la jël. mooy temps bi ñu ko téewee ngi li nga doon wax ñëpp xam ne li nga doon wax la jógee dëgg la nelawoo leen démb teel a xëyaat ñëwaat ci stade lépp pour bis bu jag rek uh-huh. xam nga lig dañ koy dimbale rek comme li nga wax te yàlla tax uh-huh. dafa wéet ci terrain bi tey ruq xaan yenn yi ñun yàgg naan arène nationale ñoo ko xam eh, jox ma sama mbuus bële comprendre nga waaw dañ ko ci dimbale bis bu jag ci jàmm te lu ñu doon wax ay at ay weer ay fan ban na tey la kon dañ ci gën a jàpp rey suñu bopp jàppale ko te yàlla tax bis bu àgg si jàmm mais Lamine cey ñaari mbëri buñ dogalee fii nga gis làmb de. cooli bëri na de cooli bëri na de. mais doy la waar daal <laughs> mënuñu wax lépp. kenn mënul wax lépp xam lépp wax lépp loolu baaxul. xam lépp wax lépp loolu baaxul ba léegi ñu ngi fii ci arène nationale. mais père teel ngeen a constaté lu xew maa ngi leen di ziar. ndekki ngeen ndekki nga. non ndekki ngeen. non defuma ah. lan moo la tere ndekki da tiit. lamb jee rëy non lamb sama néew waaw ban supporter kese laa dama ñëw pour seetaan kese kese amateur la amateur amateur nga waaw mais kan ngay supporter Ama Baldé nga dëkk hmm, fan ci Pikine non Rudis Rudis maa fa xam <laughs> mais dal na ci Ama non bu baax hmm. bu baax a baax gannaaw yow foo maa ngi dëkk Pikine Rudis ah, taaf laa dëkk di taaf waaw daal la xamal lamb ji làmb la de Modou Lo dafa indi roi des arènes ko jëlee ba léegi musul bëri ñu ngi soog a bëri moo gën gën a doon mhm. ba tey jii tey la ko yàlla dogal. waaye nag euh, ci li ma ci xalaat man. Ah. bu at bi li may digal Ama Baldé bu mu ko may dara fu mu taxaw na ko fekk bëgg ndam su deful loolu du am ndam. su Ama Baldé attaqué wul du am ndam. du am ndam parce que Modou Lo cin luy ba cin luy baax la foo dugal. amul ruq bu sedd amul ruq bu sedd moo foo mu yëngal ko yëngalu mbana jëqi rek jëqiwaat këpp këpp noonu la deme demee jëqi jëqiwaat këpp borom le 25 décembre a ngi nii borom le 25 décembre a ngi nii Modou Roubé mais gis naa ngeen taxawul combat bu garaaw euh, kii Bulldozer ak Boy Yaraax bi hmm. kii mooy Kaw gën a yomb mais gis naa ko loolu xalaat gis yee stade Baba Diaw beneen day amaat beneen am na ñaari war a taxaw ni léegi léegi bu taxawee ñëpp te seen lam dañ koy finaliser léegi mais bésu tey bi noo ko gisee waaw bésu tey alhamdulilahi rabbil alamina di remercier itam yéen ñi jàpp ci combat bi yëpp parce que ñaawoon na trop ñuy wax wax ju ñaaw lamb du wax ju ñaaw toujours may wax rek tey boo xoolee tey comité lu mu daj ak système bu mu daj war ko yéene ay ay bésam muy am ndam parce que lamb bu amee ndam lamb moo am ndam. kii jël ay centaine de millions dugal ko si. ku ne toog su ruqul yow wax ju ñaaw lañ bàyyi wax ju ñaaw si lamb. baaxul wax ju ñaaw baaxul yóbbul fenn dañ lay fay ngay wax ju ñaaw amul sens. lamb day day def lu wax day day naw la tey boo xoolee organisation bi mu am. secteur ñu ibbi stade bi amul benn débordé amul lu fiy xew. day jeexaat ruwaay fu mu war dem bu demee parti yoo xam ne war a dem bu demee bëgg na a nañu rafetal lamb ji man lamb jamaïcain jam production lamb man gis naa ku ñëw mbër bu ñëw 9h du matin muy Gris Bordeaux mais supporters yi duggee stade 10h ba 9 loolu mosuma ko gis jamaïcain bés bi moo toll noonu voilà. waaw Lamine maa ngi lay ziar di la béggee dina ñuy suivre ci Lutte TV yëpp man nag dama ne ñu doon wax ne làmb moo dee lamb moo dekk ndax man mii di wax ak yow dugg naa lamb 8h Modou Lo Balla Gaye waaye loolu ay 2012 nga ko doon gis. bi ñu génnee 2012 2013 2014 fi la loolu gëj a am ci ba tey kon ñu leen wax ne làmb dee woon na kon jàpp nañ ne bis ki tey fi làmb nekkoon 2010. làmb du mës a dee. 2011 2012 làmb fa la toog tey nag la gars yi sénégalais yi war a xam làmb lan la tekki ci réew képp ku ne ci réew mi ñu di sa bay rek mbërëm làmb dañ lay jay dañ lay nax. fàtte nañ ñëpp. dama lay wax rek Sénégal laa ku fi nekk ñuy tëkkale sa bay rek ak mbërëm làmb dañ lay nax dañ lay jay. ñu leen wax ne làmb dee na tey li mu fatt ci réew mi bëri na ku amoon ngénte cent cinquante at waaw Lamine xoolal politiciens yi candidats yi ñu yëngatu ci wàllu politique fan yi kan moo ñemee def campagne ku mitin ku dajale ay nit mais soirée yi nga am soirée démb ku doon tëgg démb waale tëgg na waale mi nga xam ne ni bokk na ci artistes yi gën a xew ci réew bi jaaxle na dem di xëccoo ji nu mu tëddee disque d'or. waaw démb da doon tëgg kenn yëg ndax làmb ji. sa waa ji Pape ku yëg na ko de. Pape yëg ko. Omaro ci boppam Omaro mi nga xam ne ñëpp. démb anniversaire dégg naa daa pousse anniversaire Omaro mi nga xam ne démb la waroon anniversaire si si soirée waaye bi da koo pousse da koo ba tey. ndax làmb ji rek. ndax làmb ji. kon nga xam ne làmb du ay caaxaan mbir nag bu demee ba tollu foofu Lamine. na ci état bi jël seen responsabilité. kon da ngay dëggal waxu liw coor ba ba yaram bi tàngee ba mu ne làmb du caaxaan. làmb yàgg naa wax làmb du caaxaan man sama gis dama naan làmb du caaxaan làmb ku ci dugg di fo wala ngay caaxaan demal nga defi leneen dama ne li xew nii ci réew mi tey làmb dafa régler situation yu bari coowal làmb ci am na coow yu bari yu mu mënoon a jóg ñu ngi di débat débaatuñ ci kon làmb chaque weer ah bu fekkee gaa yi bëgg nañ nit ñi tal làmb jàmm am ci réew mi mois bu nekk na événement bu grand événement am. te liy indi grand événement di am chaque weer mooy société nationale yi fi nekk ñooy dugal seen loxo ci làmb jàppale promoteurs yi sponsorisé leen combat yi mel nii du jeex ci làmb ji de ñu ngi fi du jeex chaque weer mën nga def combat bu mel nii te dëkk lépp loo xam ne nii day indi stabiliser dëkk état da ci war a bay waaram. mais jëm dama fi gis sécurité bu énorme yow ñoo mhm. gis nga rond point Canada bi gars yi nit ñi saloo foofu. boo passé rond point bi. premier rond point wala dernier rond point avant nga egg si gis nga gars yi ni ñu wàccee foofu yamuñu ci wàcc foofu mais dañ ko wërale seen i oto nga dugg ci biir mel ni ay supporter lañ ci biir gendarme yeeg police yi fees dell dell dell ci arène ñoo ëpp ñun ñi Lamine. waaw loolu jàmm jàmm ko gën. fi muy jógee du fa jeex waaye fi dem du fa doy tey ku indi jàmm am jàmm. ku indi leneen xam nga nooy mujjee garaanu lamb ji demee dañ lay teg place ngay laajte fu wér loolu góor gu nekk war nga ko nañ xam ne lii du caaxaan bu demee ba àdduna bi yëpp di ci bàyyi xel Sénégal gépp di ko xel nit ñi dañu war a xam loolu mooy lan fii ku fi ñëw indi fi jàmm ak salaam ñaari bëri ay doomu réew mi lañ ndam li génn réew mi ndax Lamine démb yaa ngi fi woon commandant ndaw ah gis ko fi gis nga fi uh-huh. ko fi kon loolu ay caaxaan ay kilifa corps urbain yi maanaam lamb ji ñoom jël nañ ko au sérieux ay kilifa ñoo jël li gën a dem démb naaj bu tàng 3 heures ci bëccëg 4 heures. gis naa la nga ñoom rek. xoolal ñuy dox di wër stade ak naaj bu tàng boobu ci ay kilifa oto yi taxaw ñu bàyyi fi oto yeeg lépp di wër làmb ci. kon à ñaari mbëri dugg si ñu xam ne ñaari doomu réew bi ndam li du génn Sénégal. déedéet ndam li du génn Sénégal kee ngoog pap pap pap kukuf. non non pap parfum VIP. pap parfum VIP. borom Zador. borom Zador. est-ce que doo ma embauché. borom Zadoror. non problème bi mooy tey da nga teel a ñëw ah. mooy sponsor leader bi nag. sponsor. Télé le 25 novembre à l'arène nationale mbokk yi Jandeer production moo ñu woo arène nationale indil ñu nag affiche bu mag a mag a mag du xam ngeen Modou bu Thiès ndaanaan bi champion bi jàmbaar ji moom la Jandeer jël daal di koy boole ak Aliou Seye numéro 2 bu waalo doomu Géejuwaay xale bi mën a bëri lool tey jàmbaar mbokk yi boobu nag la ñu jël daal di koy jagleel Yves Lamine Ciss mooy maire bu Morolan di jàmbaar ci gox ba combat spécial bi war a dox ci diggante Boy Jaxaaw bu Thiès ak Youssou Ndour bu maire de Kayar mbokk yi Kélédor dina fa jàkkaarloo ak Junior drapeau Zalmbay opérateur économique nekk foofu ci commune bu Diender mbokk yi Wassintour dina fa jàkkaarloo ak gaz bu ñàkk ak yeneen six combats ci bésu le 25 novembre ci arène nationale lamb ji nag mbokk yi en live pay per view ngeen ko mën a am ci seen affiche point com que ça soit Sénégal wala bitim réew ci seen affiche point com dong ngeen mën a jaar bu seetaan lamb ji dox ci diggante Modou Anta bu Thiès ak Alioune Seye bu Waalo ci ak Diender production e papa sey yo feroson e gorma kañota e karpile